Ah, waxuma ko de waxuma ko de waaye niru na sama xel tey na niru na ma lool oto nervi yi léegi bu man lima ma bëgg a wax ci mbir yi mooy pour yéen ñiy ñëw ci man naan ma nit bu defee lu baax da ngeen koy wax jërëjëf déedéet juum ngeen loolu choix personnel man baara personnel man gisuma benn président buy defal askanam ba ma tax ba ba ma ñëw man ne ko jërëjëf xam ngeen lu tax parce que dama jàpp ne alalu askan bi moom la delloo askan bi te est-ce que sax teel na leen koo delloo xam ngeen président Macky yéen a nekk ci réseau yi di wax waaye moom xam na ne jeunesse bi ñoom jamono jiñ toll nii taxaw nañu te ñu ngi ko def bii parce que nag grâce à Seydina Ousmane Sonko mo fekkoon ñuy nelaw mu sotti leen ndox mu tang ñun ñepp a tëbandoo ña dess des daanu ci ñow ko ña doon nelaw ñepp yewoon yeewoondoo Macky de mo leen gëna a mu maye jet privé sax taxul ki mu ngemb tok fi ci réew mi mais nak ñim ko may yalla na ràpp ak